asalaamaaleykum gars yi na ngeen def maa ngi leen nuyu leen ziar leen fàttali yéen a ngi seen canal Galsen Tube ci seen programme comment gagner de l'argent sur YouTube naka la ñuy gagner xaalis sur YouTube vidéo ki leen koy defal di Pape Mor Lo ñoo ngi koy defal en wolof. vidéo tey bi nag day ñëw ci installation euh, logiciel bi nga xam ni mooy bool ka pour euh, ngay jël mën a jël texte di ko def mu nekk wax si ak euh, voix robotique mooy comme ni ma leen ko waxoon démb ci bi am na ñu mu ko demandé léegi soxla nañ ko moo tax ma ne xaaral ma def ko. Euh, ak tamit extension bi nga xamante ne mooy euh, TTS Reader pour nga mën ko installer ci sa Chrome pour mu mën la traduire euh, texte defal la ko wax waaw pour vidéo yi ñu leen doon woon top secret démb yi parce que dañ ci war a def benn vidéo shortcut tey vidéo shortcut bi laa waroon def mais ma fàtte ni pour moo pour ngeen mën ko appliquer il faut ngeen am benn ci ñaari logiciel bi wala extension bi pour mën ko def moo tax ma jiital vidéo bi wan leen du ngeen di def ba installer logiciel bi wala du ngeen di def ba installé tam euh, li nga xam ne mooy extension Chrome bi avant may def vidéo shortcut bi pour wan leen nan ngeen defee montage façon vidéo boobu léegi boo ñëwee ci sa ci Google li ngay def c'est très simple da ngay de rechercher Bola Bolka Bola Bolka waaw gis nga nii Bola Bolka ñu def recherche boo recherché dina la defal site bi nga xam ne ñoom ñoo koy di ñoo koy def mu disponible mi ngi nii cross tiré plus tiré a point comme waaw mooy site bi koy def léegi surtout téléchargement yu bëri na dañ koy reprendre site bii mën nga ko fa télécharger yi ay site yu wóor yi téléchargement muy 01 net bi ak Clubic yi mën nga ko fi télécharger mais site bi mooy site officiel bi mu nekk nga ñëw nga cliquer ko boo cliquer gis nga mu indil la ko nii version ji nga làkk yu bëri la am voilà version pour pour mu indil la ko ni nga ko bëggee léegi lan ngay def boo ñëwee fii ngay ñëw fi ñu bind télécharger le fichier nga cliquer boo cliquer nga xaar ji nga mu demandé la fan nga ko bëgg a ma def téléchargement laa ko bëgg a nga enregistré ko mu nekk fichier zip waaw ah, moo ngi nii moom diisul noonu di nga dix 18 point 7 méga la xam nga loolu diisul voilà bu téléchargement bi jeexee automatiquement dañ ko ubbi ci dossier bi après léegi pour euh, extraire ko installe ko nga nga gis ko léegi ñu pause vidéo bi ba téléchargement bi jeex waaw téléchargement bi pare na léegi ñu ubbi ko ci dossier bi ñu def nii ubbi ko ci dossier bi Kobe moo nekk nii mi ngi suñu dossier téléchargement moo nekk nii lan la ñuy def dañ koy des dézipper boo double cliquer su nga mu ubbeeku voilà tëj WinRAR léegi nga setup bi moo nekk nii setup bi ngay def double clic boo defee double clic mu installé wu léegi nga mu demandee la autorisation pour ordinateur bi da ko détecté waaw bu dee yow mun na mu def mu def ko automatique ñu tëj ko kii mën nañ ko tëj léegi ñu xaar installation bi léegi gis nga mi ngi ñuy signaler fii ci suuf ñu ñu xëcc ko mu ñëw voilà léegi mu ngi nii installation bi lay commencé léegi daf ñuy demandé ban langue par défaut détecté nañu ordinateur bi dafa nekk français moo tax mu sélectionné ji nga français ñu def suivant yow bu nga vérifié fii nag bu choisir beneen langue nga ñëw ba def ko langue bi nga bëgg waaw bu dee anglais nga nekk à l'aise nga def anglais bu dee français nga def français bu dee espagnol nga def espagnol bu dee arabe nga nekk nga ñëw fii nga def arabe voilà ñu def suivant defaat suivant defaat léegi fii gis nga mën la dinañ la créer benn icône ci bureau bi waaw dinañ la ko épingler ci barre tâche bi nga bàyyi ni par défaut bu nga bàyyi ni dina am icône buy nekk ci bureau icône buy nekk ci bureau mooy lan mooy comme yii nii nekk sa bureau waaw gis nga moo ngi nii amoon na icône ba pare dama leen di woon naa rek mais installé woon naa ko ba pare voilà léegi ñu def suivant ñu xaar installation bi mu extraire fichier yi installé ko ci ordinateur bi waaw du yàgg quoi parce que logiciel du logiciel bu 10 a 10 pour traduire texte la rek voilà texte ngay jël def ko ci mu defal la ko wax waaw yomb na gis nga mi ngi ne dafay démarrer automatiquement boo ko waaw léegi fii mun nañ ñëw ñu réduire ko pour mu feeñ mu demande nañ nañ redémarrer suñu ordinateur pour installer mais lii soxla ko comme dama leen wan nuñ koy ma def déedéet voilà fii mën nañ ko tëj boolaa bool ka ubbeeku na automatiquement léegi mi ngi nii bu ubbeekoo nii lay mel léegi bu dee xama tëj ko woon la bu dee yow da nga ko def ubbeekul bu ubbeekul boo installé bu pare ci sa ordinateur nga war icône bii icône bu mel nii lay def voilà après nga double clic ko boo ko double cliqué day daal di ubbeeku voilà léegi bu ubbeekoo nag texte bi nga xam ne moom nga bëgg a traduire moom ngay ñëw nga kole ko fii fii ngay coller texte bi soo kolee texte bi ba pare lan ngay def gis nga ngay vérifier langue ban langue la choisir réglage yi mun nga fi bañ def benn réglage di indi complication parce que réglage yi fii mun nga wax bi mun nga ko def mu gaaw mun nga ko def mu yeex ak yooyu mais dama lay daal recommander par défaut nu mu ñëwee soo bañ am complication jëlal sa texte nga nga coller ko fii euh, ñu dem euh, jëli benn texte fii ci internet bi voilà mën na ñëw fii ñu copier rek fii benn texte bu ndaw bout de texte bu ndaw pour wan leen rek nga def nii copier ko mais comme da nga bëgg bind sa texte bopp bu la neexee texte bu dee looy bind la nga bind ko bu dee texte booy copier te bu dee article nga copier nga def léegi nga ñëw fii nga coller ko soo ko coller léegi da ngay ñëw automatiquement nga def fii bouton bu verte bi nga def play. Le programme Balaboka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. dégg nga xam nga liiral na ko ba mu egg. léegi ji nga bu fekkee curseur bi comme ni muy clignoté yaa ngi ni muy clignoté nii si cat bi nii nga play day ñëw ci commencement bi liiral la ko soo ko tegee fii tam ci commencement bi nii muy clignoté ci commencement bi dala koy liiral mais su curseur bi nekkoon fii par exemple ci diggante bi fii ma ñëw ma def play du commencé fii fii ma teg curseur muy clignoté fa lay commencé gis nga. en vue de reproduire la voix humaine il est possible d'utiliser tout. ji foofu fi nga mais soo ko tegee biir bind yi fàtte fi nga ko teg rek lay commencer loolu nga bàyyi ci xel baax a baax léegi boo defee ba mu enregistré ba jeex par exemple. Au vu de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. xam nga liir na ko ba mu egg léegi ñu bëgg ko def ñun euh, li nga xamante ni mooy euh, mp wa fii ngay ñëw fichier nga cliquer ko soo cliquer fichier nga ñëw wàcc fii ñu def enregistrer le fichier ojo nga daal di cliquer. bu loo ko ubbilee ba dossier bi nga ko war a enregistré c'est très simple gis nga lu mu la defal fichier wave te yow mp nga ko bëgg a par exemple nga ñëw fii nga cliqué boo cliqué mu ubbil la liste yi disponible option nga ñëw fii nga def fichier MP3 nga ko bëgg a def nga def enregistré par exemple tey su ma ko enregistré woon si téléchargement pour mu neex a gis ma def enregistré gis nga enregistré na ko voilà léegi ñu réduire ko dem déglu ko pour nga xam. ñu dem téléchargement gis nga moo ngi mën naa ko cliquer droit ubbi ko ak euh, VLC nga déglu sa bopp. Le programme Balaboka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. dégg nga voilà yaa ngi déggal sa bopp léegi ñu ñëwaat Euh, ba léegi na sociale bi ñëwaat ñu ubbi ko gis nga fi lañ nekkoon léegi ji nga langue yi nga xam ne langue yi nag des fois dafay limité gis nga léeg-léeg man fii langue yi am na yoo xam ne maa ko dee daal français bi la français da koy am anglais da koy am waa espagnol bi mais am na anglais na français par défaut noonu lay ñëwee voilà léegi li mooy li nga xam mooy logiciel euh, Balabolka nii lañ fiy traduire texte mun nga fi def texte bu gudd traduire ko mu waxal la ko ci français nga monter ko di si def sa ay vidéo sans yow mu nekk yaay traduire li nga xam ne mooy texte bi léegi ñu dem ci deuxième bi mu ngi xam ni mooy extension bi ci Google Chrome extension bi moo ngi nekk nii TTS Reader X voilà moom la léegi boo ko bëggee installé te amoo ko nan ngay def bi nga ñëwee ci sa li nga xamante ni xaar ñu tëj fii pour mu leer si yow bu bu baax yaa ngi si sa Google Chrome léegi TTS reader bi ñuy télécharger nag ak bii teg teg duñ bokk logo parce que dafa am beneen version version bii ñu installé woon dafa yàgg bi ma ko installé léegi doxatul teg teg comme ni mu mel nii bu ñëwee fi ñu vérifier ko ñu xool gis nga ñu cliquer fii ñëw ci mi ngi ni TTS reader ñëw cliquer trois points yi dem pour vérifier ko disponibilité am ci site internet bi dangay gis fi ko Google defoon di nga nekkatu fa supprimer na ko léegi lu ñuy def dañuy dem ñu rechercher TTS reader dam beneen version bu gën a bees bi bu mu indil dañuy cliquer fii trois points yi buñ ñu cliquer trois points yi lan la ñuy def dangay wàcc plus d'outils boo jógee plus d'outils nga ñëw fii nga ñëw extension soo cliquer extension nga ñëw fii ci trois points yi nga cliquer ko soo cliquer trois points yi wàcc ci suuf fii ñu def ouvrir le Chrome Web Store nga cliquer soo cliquer foofu beneen page ubbeeku nga ñëw fii nga def recherche TTS Reader voilà TTS Reader bi mooy léegi bi nga xam ne moo disponible léegi lu ñuy def ñëw fii def ajouter ak Chrome ñu cliquer ajouter ak Chrome ñëw fii ci kaw euh, kii bi muy ñuy génneel ñu egg ñu fenêtre bi muy génnee ñu kii ko ñu confirmer ko ajouter l'extension léegi ñu xaar mu ajouté wu gis nga ajouté wu na gis nga page bi mu ñu ubbil pour ñu choisir langue bi nga xam ne moom lañ bëgg mu koy wax mun nga cliquer fii nga choisir langue bi nga xam ne moom nga bëgg mu lay traduire texte yi léegi bu dee français nga bëgg da ngay wër français bi moo nekk nii Google nga def france bu dee espagnol nga def nii fii wala fii bu dee français nga def fii ñu cliquer france lañ bëgg mu ñu koy traduire léegi réglage yi pour vitesse bi la maanaam fii par défo volume bi fii la voilà bu la neexee mën nga ko yokk tuuti voilà yokk tuuti speaking rate maanaam fii mooy ñaata maanaam euh, moo nga bëgg muy wax par minute voilà fii guddaay mais mun nga bàyyi ni par défaut soo enregistré bu dee da gis ni dafa yéex mun nga ñëw fii après nga yokk ko quoi voilà léegi boo defee nii lan ngay def léegi nga ñëw dem ñu dem euh, wëri suñu page bi nga xamante ni moom lañ bëgg a traduire léegi lu ñuy def dañ ñëw ñu sélectionné texte bi nga xam ne moom lañ bëgg mu liiral ñu ko léegi par exemple mun nañu sélectionné rek phrase bi pour mu gàtt pour pour exemple bi voilà léegi looy def boo sélectionné ba pare da ñëw rek ci bi nga cliqué Le programme Balabolka permet la lecture des fichiers texte à haute voix. En vue de reproduire la voix humaine, il est possible d'utiliser tous les synthétiseurs de la parole installés sur un ordinateur. gis nga léegi liiral na la ko léegi nag moom lu mu différencier wu ak logiciel bi bi mën nga automatiquement bu liiree ba pare rek nga enregistré ko MP3 waaw extension bi nag su la liiree ba su lay su lay liiree yow yaay am beneen logiciel boo xam ne dafay def euh, capture comme nga am logiciel bi def capture écran nga lancé ko ba pare nga soog def lecture bi ce que fait que voix bi muy lire yëpp da koy enregistré soo paree automatiquement da nga koy am nga supprimer image bi dese bi def sa montage loolu mooy différence bi mais ñoom ñaan yëpp loolu la ñuy def mais bola bolka bi moom moo gën des fois pratique parce que moom automatiquement koy mën a yóbbu mu def ko MP3 nii mooy ni nga xamante ni noonu nga mën a amee benn texte def ko mu nekk wax texte boo xam ne dafa liir dafa wax benn article nga def ko mu nekk lecture pour après léegi nga mën ci def ay image mu expliquer ko euh, comme euh, vidéo bi ñu leen won démb si top secret bi ñu leen doon won démb nan ngay def bay defar ay vidéo te yow doo wax ba pare te doo ci feeñ texte ngay jël indi ko si logiciel bi mu defal la ko wax nga dem jël image yoo xam day illustrer wax bi boole ko monter ko léegi nag beneen vidéo bi nga xam ne mooy nekk shortcut léegi nan ngay boolee nag léegi texte bi day ñëw fi jël benn texte def ko mu nekk euh, vocal buñ paree jël texte bi jël dem jëli ay ay image yoo xam ne day ànd ak moom dem na ci logiciel bi wan la loolu boo ko amee par nan nga koy assemblé def ko vidéo waaw vidéo shortcut bii di ñëw loolu lañ lay wan nan ngay defaree vidéo à partir de son ak image kese vidéo tay bi foofu lay yem doon la wan rek installation bi la bola bolka bi ak extension TTS Reader di la jox daje ba vidéo bi ñëw incha allah TTS Reader muy application boo xamante ni am na TT